asalaamaaleykum gars yi asalaamaaleykum téléspectateurs ñu suivre Zambro TV comme ni ñu koy defee gars yi ah leen toppal champion ndaanaan yi te nag ñu ngi à domicile seeti champion bu mag koo xam ne kenn dootu ko présenté ci làmb ah muy suñu grand suñu lépp ñu gën koo xam si Daouda Ndour moom lañ seeti tey euh, fii ci Palmarin Ngàllu fas yéene waxtaan ak moom euh, ci wàllum làmb ak ci yeneen affaire yu bëri mais avant tout d'abord balaa mooy xuus si waxtaan bi maa ngi bëggee sama caméraman sama sénégalais di naan gars yi aussi bu dee abonné go abonné laal ko leen notification bi ah avant ñu xus si waxtaan bi dañuy bàyyi ah suñu grand suñu papa suñu lépp muy grand Daouda Ndour mu nuyoo téléspectateur ñu koy suivre à travers Zambro TV et le monde entier grand Daouda nuyu nañ la. Euh, jërëjëf Zambro TV. fay naa leen bu baax a baax. Mm-hmm. Euh, di leen di jaajëfal tam. Mm-hmm. vraiment taxawaay bi rafet na. Mm-hmm. par rapport seen liggéey euh, lépp lu ci mun di am ñun ñu ci teg suñu bot euh, toujours dama koy wax euh, par rapport vraiment doxalin bi ñu xam ne rek secteur bi ñu ñëpp a ko bokk da nga ñëw vraiment tëddee njaxanaay amu leen ci xaji ak seen ku nekk ngeen topp ko fexe ba xam mooy kan ak fan la jaar vraiment ma di len di sante ci loolu di len di gëram vraiment di sante aussi wa Palmarin yëpp. Mm-hmm. di sante vraiment aussi ahlul lamb yëpp di sante Sénégal gépp mm-hmm. waaw contane bu baax baax nak ci li ngeen di dox. Mm-hmm. jërëjëf. Euh, loolu am amna solo grand de ginaaw bu nga nuyo pour fu ñuy tijjee waxtaan bi moy euh, grand daw kan moy grand da ah, merci beaucoup. da ma ngi dëkk Palmarin. dëkk fi ñuy wax aussi ngalu sam-sam mm-hmm. mm-hmm. euh, judo ci ker gu ñuy wax euh, ker Abdoulaye Ndour mm-hmm. tey jii bu ñu xuusee ci euh, cosaan Abdoulaye Ndour moo nekk premier fondateur du village donc mu nekk loo xam ne tam lu am solo la man du nekkul sama maam boo xam ne dañuy lim muy gudd mu jur sama papa direct donc mu nekk lu am solo euh, ma juddoo fa yaroo fa màggee fa euh, ñu yar ma yar bu mucc ay won ma fi ma jaar xamal ma àdduna ba tax man wax dëgg yàlla maa ngi sant suñu borom bu baax a baax euh, bu dee xam fi nga war a teg sa tànk xam ni nga war a fi nga war a jaar ak doomu aadama yi xam ni nga war a dundeek nit ñi xam li nga war a wax booy waxit wax deug yalla yar nañ ma ci ma xamé ragné xam mag ak ndaw kenn ku ne cër bi mako wara jox may sant bu baaxa baax euh, daw da la tuddu sant Ndour Lamine Ndour moy sama papa may mo a ndew fay moy sama yaay fi la juddoo fi la yaro vraiment magge ci gox bi nekk ko bëgg gox bi aussi waaw. Euh. lolu amna solo mais grand Daouda euh, suñu première question moy dégg nañu grand Daouda jaar na ci lamb mais yagul Euh, nu mu demee noonu ak lu tax yàggul ci làmb ak lu la dugal ci làmb. jërëjëf euh, ma sawar tontu ci loolu bu baax a baax. xam nga tam euh, dëddi bu ñu limee ci maam ya. palmarès gépp moo amoon ay champion. surtout que boo nee non bu ñu demee ci maam ya sax. boo nee xama mhm. jeexal nga lépp boo ne pertening jeexal nga lépp boo ñëwee fii ay mbër kaami la fi nekkoon euh, ñoom Pawaali hmm, sama papa Daouda Ndour ak ñeneen ak ñeneen ak ñoo xam ne jaar nañ fi nekk ay mbër ay ndaanaan ba keroog ñuy wàcc ci si suñu génération sama mag sàmba da doon bëre biru euh, Michel ñoom Valdo ñoo fi jaar du nekkoon di bëre ñoom ñu nekkoon di jàng métier Euh, ba tax li gën a tardel sama bëre bokk na ci euh, it fi ma laal sànq nee naa la fi ma jaar dañ ma yar amu woon sañ-sañu décidel sama bopp dara xëj na bu ma amoon sañ-sañu décidel sama bopp dara mënoon naa teel a dugg ci làmb comme ñëpp parce que ñi ma boreendoo bokk ak ñoom drapeau du ma ñu sax samay morom maa leen mag mais yàlla tax na tam bëre du ma dañ doon jàng métier ma gas maa ngi koy nuyu au passage vraiment mu nekk nit koo xam ne ba tey jii ñoo bokk jubluwaay muy ko nit ku baax muy nit koo xam ne vraiment macha allah ñoo bokkoon fi ñuy langee ci sama mag di jàng métier apprenti chauffeur benn jour lañ jékki-jékki rek ne ay waa ngeej mooy tëgg ñu wàcc fii toog ñemewuñu dem fenn parce que ñemewuñu sama mag ba yàlla tax ñu dem taggu ko mu bayyi ñu dañoo tardé fii la ñu be ngalu be ngecc mm-hmm. ñu dem payi ne duñ leen bind ambourage deug deug mo taxu payi ne leen mm-hmm. ñi il faut ngeen bind leen parce que ngalu lañ doxé be fi mm-hmm. ñu bind ñu ñu nekk ci drapeau bi nekk ci nekk ci be vraiment ñu des quatre personnes demi final. man gas ben grand gain bu ñuy wax yaas dekk Soudiane ak bala rastaman mu dekkoon ngunumaan don don don doonoon gardien jamono yooyu bala donc ñu des quatre personnes dëgg-dëgg eh, ñun don dañ doon ñaan kenn ku ne di ñaan pour dajeeg bala parce que xam nañ ñoo man bala yàlla def nak ñu tiiraas ma dajeeg eh, yaas gas dajek bala dan bala yas dan. ma ñu ñib si man ma continuer dem langi gas xaar finalam jël final ba fa la jaar topp bëree bàyyi oto yi man tam comme ci sama mag laa nekk te ndigal laay wéyee ma continuer sama métier. Mhm. ñoom gas presque def nañu lu mot deux ans trois ans yoo xam ne. Mhm. maa ngi ci oto yi après laa leen fekk si ñëw. Mhm. doo ko ñëw jaar ci bëre vraiment it mu nekk loo xam ne. Euh, yàggul mais sant naa suñu borom bu baax a baax parce que. pour ma sant suñu borom mooy jaar naa ci. aw ci benn gàllankoor. jaar naa ci mhm. wax dëgg yàlla defuma ci loo xam ne ba tey ñu ngi koy wax mu nekk loo xam ne rafetul euh, bëre daan ak daanu la mhm. ñu jaar ci am lu ñu def mhm. ci mu nekk loo xam ne mbégte lañ ci jëlee ak kontaante am foo xam ne dañ faa jaar jëlee fi naqar parce que bëre kontaan ak naqar moo ci am tey da ngay am bu baa nga ñàkk euh, sama première drapeau maa ko bëree Diofior boobu sax maa ngi ci oto yi ba léegi. boobu yaa ngi def ban catégorie. dégg li ma la wax boobu sax bëree maa ngi ci oto yi. Mhm. biiru biiru yatu. Mhm. moom la ñu gunge woon mu boole ji lu seeseen jo lu seeseen Diofior. Mhm. ñu ne non lamb ji suba lay jaar. mu ne ñu ne ma. bàyyi ñu dem lu seen paas bi mu tagul pour mu tatul pour ñu ñett ñu dem kon xaar ñu joof yor bu ñu ñëwee fanaan joof yor bu subaa ñu bëre joof ma des fa ànd ak ay booy xawoon nu ñuy def ma ab ser dugg ak ñoom bëre ci tànk yi mhm. yàlla def ma jël tànk yi ci mhm. bambaasul mhm. donc loolu mu nekk loo xam ne aussi dama ci kontaanoon bu baax a baax parce que boobu vraiment euh, commencé wu ma woon bëre mais bi nga jëlee tànk yi boobu lan leen tegoon xaalis wala nag euh, mu nekk loo xam ne lu doy waar la naqareew nettali sax fi mu ne nii jar nañu drapeau tànk boo xoolee lamb ji dañ fa tegoon taabulu coupe ñu ne kenn ku ne dañ lay jox coupe mm. coupe ya mm. balaa lamb ji tas ramassé nañ coupe ya yëpp yóbbu leen jox ma benn blouson ak cinq mille loolu lañ ma jox <laughs> billaahi mm-hmm. gis nga ko ma ñëw aussi vraiment continuer ci métier bi nekk si ba bi ma mokkalee sama métier nag mm-hmm. beneen euh, dama war a am permis ma xaw a waxante ak sama mag yi ne il faut balaa maa nekk si si oto yi damay am permis mm-hmm. ma wàcc oto yi durant deux ans

ñoo fi nekkoon di bëree comme raw gadu parce que dama leen fekk si boobu ñu bëree seen poussière ba ñëw raw gadu directement man ma ñëw bëree raw gadu direct donc foofu lañ jaar vraiment mu nekk loo xamoon loo xam ne vraiment euh, lu doyoon waar la parce que ñun ñëpp euh, nekkoon nañ ñoo xam ne tey jii bu ñu demee ci làmb ku ci may sa morom. Mm-hmm. dalay wóor ne kii nii dafa war a jël drapeau bi mm-hmm. Euh, vraiment ba mu nekk loo xam ne ci raw gadu lañ ko commencé dem ak moom ba presque poids lourd mhm. mu nekkoon coow lu bëri. Mhm. fii ci tund bi. Mhm. parce que dégg naa sax gars di leen tooñe des fois waa Palmaringal dañuy sot drapeau yi. <laughs> dañuy sot drapeau. justement vraiment mu nekk loo xam ne loolu. si woon na fi lool. mais it dañ ko ci dañu dañ ko tegoon ci cadre sport rek dañu newoon. ñun mbooloo bi ñu doon di ñëw. dëkk yëpp amoon mbooloo Fadiouth dafa amoon a mbooloo. Joal amoon mbooloo. John Waar amoon mbooloo boobu ñoo quelques personnes rek la am comme mbeur instant yi dafa dafa dabé ñojor dafa dabé fekk ci nit ñi vraiment jaay doole ba yegg si fi mu yegg si. macha allah vraiment boy ñojor yi. euh dañu li liñu liñu am fi mu ne nii. parce que jamono yoyu ñojor joor bari woon ay mbor mais John Waar moo yoroon ay mbeur ñu bokk ben génération diko ko defante di di di di laalante ci biir. ñu nak wa John Waar yi daawuñu woon tegante bët. jamono yoyu vraiment mu nekkon lo xamné ne macha allah mais ñun amoon nañu habitude lii nit ñi di wax yëpp bu ñu demee entraînement war a dem làmb dañ doon xaajoo mm-hmm. ne ñii nañu seetaani fee ñii seetaani fee ñu dem vraiment mu nekk lu rafet mm-hmm. loo xam ne jaar nañ ci dund ko mm-hmm. euh, dund bi ñu doon dund jamono yooyu ak booy dund bi ñuy dund nii sa fait deux ñun benn benn benn wax rek lañ amoon amuñu woon xaj ak seen ñoo doon bokk entraînement vraiment kenn mënu woon xool sa bopp sa sa morom bot boo xam ne mhm. dañ ci gis leneen vraiment may ñaaxaat booy itam mhm. du palmarin rek mhm. ñu xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi métier bi boo ci tolloo da ngay rafetal parce que tôt ou tard ko bàyyi te boo ko bàyyee après li li nga ci jot a def mu rafet day neex a nettali mais li ci ñaaw doo bëgg kenn wax ko kon ñu góorgóorlu bu baax ci côté boobu ñun dañ doon dund dund bu rafet di yondu benn kër di fa lekk di fa def lépp bu entraînement jotee ñu tas kenn ku ne jëli sarab ñu dem entraînement bu ñu fa jógee ngonnal benn kër xam nga bu ñuy seetaani làmb ñu xool nan la ñuy def ba ñu partagé wu ñuy jaar fii ñuy jaar fii nekk lu rafet jamono yooyu itam vraiment mënuñu woon dem làmb chaque semaine mu am ay drapeau yu drapeau yu dugg si fii waaw mu nekk loo mu nekkoon loo xam ne vraiment mhm. euh, tax na ba turu palmarin aussi yegg fu sori mhm. loolu moom vraiment mhm. grand Daouda loolu am na solo euh, euh, ci sax résumé ca carrière tuuti mais fu ñuy point bu ñu laaj mooy grand Daouda bàyyi nga bëre mais bàyyi woo làmb moo ne bàyyi nga bëre mais bàyyi woo làmb instant yaa nekk président ah commission bu Palmarin instant maanaam ci wàllum làmb instant bu Palmarin yaa ko téye ci côté boobu euh, est-ce que grand Daouda Ndoum mun nañ ñu wax ban moment lañ ko fal. Euh, macha allah merci beaucoup. Mm-hmm. Euh, dama bëggoon tuuti rek. Mm-hmm. pour li ma jot a bëreel as mm-hmm. parce que foofu il faut ñu mu leer ci nopp nit ñi tam. à part bi ma jël Diofior jël naa raw gàddu ngunu maan. finaalu naa ngeej ñaari yoon finaalu naa fa tànk daanu finaalu naa fa poilu daanu. finaalu naa ngalu raw gàddu daanu jël naa drapeau nag jifeer. jël naa nag siwo. Euh, marul jël naa fa drapeau. Euh, jël naa suujaan drapeau. def naa final Ngoye def naa final Loul Sessène mm. ak li nga xam ne peut-être bon pour pour pour pour pour gaawantu ci affaire yi pour nit ñi comprendre mm-hmm. moo tax mu demee noonu mm-hmm. vraiment loolu yëpp ci deux ans yi ci deux ans yooyu laa ko def mm-hmm. vraiment euh, vraiment comité bi mais avant ñu dugg ci comité euh, sa premier nag mm, bi nga ko jëlee noo dundee loolu grand ndaw la euh, bon neex trop neex trop vraiment aussi xam ne rek lii sport la Euh, nit ki mun nga cee am lu ne. Mhm. bu ko yàlla dogalee parce que noonu la fa demee gis nañu fi ay champion yoo xam ne tey jii. Mhm. dañoo waroon tëdd ci làmb. Mhm. te lu yàlla dogalul loolu. gis fi ñoo xam ne aussi ñu ngi tëdd ci làmb xëy na seen wërsëg rek moo fa yegg si. kon ñu sant suñu borom bu baax a baax xam ne rek. kenn ku ne ak fi nga war a jaar. jaar jaar bi aussi lu ne dafa am fu mu war a yem. ci yow. dëgg-dëgg man aussi ñu uppoon ma doole rek sama kër comme ni ma la wax nekkuma woon kuy décider lan laay def ba taxul moo ma ay moo ma yeexloo dugg si bëre moo ma bàyyiloo teel a bàyyiloo bëre parce que ba ma amee permis dañ ma jox oto ma bàyyi kon ma comprendre grand daw la say kilifa nanguñu woon pour nga bëgg bon nanguñu woon à cent pour cent mais terewuñu ma woon mais it buggoon nañu tam ma poursuivre métier bi métier bi jamono yooyu dañu buggoon ma bàyyi lépp topp métier bi te loolu laa mujjee def loolu laa mujjee def donc euh, ñu bàyyi loolu di ñëw ci rek mhm. euh, comité bi exactement euh, binduma kañ la ak ban année la ak ban mois la mhm. mais loolu mi ngi ci suñu secrétaire général bi nga xam ne moo yor tous les dossiers mhm. mais li ma la mën a wax ci gàttal ci côté boobu mooy ñun bi ñuy xeex xeexeel xeexal mbër yi mhm. liñ leen di def ci arrondissement bi mhm. ñun ñépp la woon mhm. ñoo nag ñoom père ambu euh, ma wax la ne man mii kenn jiituwuma ci mbër yi bu fekkee ne dëgg nañu interview bi dina ñu xam li may wax ndax dëgg la wala du dëgg fu mbër amee problème waxuma ci waa ngalu wala waa ngeec ku mun di doon maay jiitu ca geew ga dem bu nekkul yoon man maa fay jiitu man maay jéem pour loolu saafarawu ñu dema dema dema dem ba affaire bi nag vraiment ëpp loxo mm-hmm. ñu mujjee gis ne nañu beru mm-hmm. beru ba ba muy am tam vraiment mm-hmm. per ambu ba loolu jaaree ci seen loxo ba loolu am man yëgatuma la xew dama jékki-jékki rek ba ñu ne Palmarin de beru na beru na def na comité def nañu fal nañu président def nañu seen lépp loolu laa ci am tam dëgg-dëgg ma am maandu te bu bu bu jéggi dayoo. xam ne ñoo bokkoon di xeex loolu mais it comme def nañu li ñu def te kenn woowu ma bàyyil ma toog ma toog ñu dawal ko ba man mandat jeex ma soxla ñëw ñu jox ma ko bañ ma ko joxee it ma sant suñu borom bu baax mais it pour bañ a juum dama koy wax toujours te fu ma toll dama koy wax dama ne père amourage ku bugg a yor fii lu xeetowoo làmb ci commune bi mm-hmm. te jëloo ko muy sa conseil yaa ngi juum parce que cëram la mm-hmm. te cër la boo xam ne mm-hmm. ku mu di doon na ko ko jox ci kaw nag teg ko ne loolu lu warul mun a ñàkk am la dafa war a am par A ou moom nag mooy xool dañ ko koy jox mu dund ko wala mu ñu ko koo dund mais man loolu laa loolu laa def man. Mhm. bañ ma falee. directement laa ko jël jëf def ko conseil moom ak xalifa Sow. Mhm. boobu xalifa mu ngi jàngale fii. Euh, ñu dund loolu. Mhm. mais amuma ci satisfaction. mais euh, daguma la ci côté Père Ambroise bi nga euh, laal noonu. gis nañu ne Père Ambroise amoon na fi écurie mais écurie bi doxatul. ci côté boobu aussi en tant que président ci comité bi ban jàngat nga def ci loolu. Euh, yalla tax na man euh, côté euh, écrit école de lutte Ambroise Sarr parce que ñu gis nañ ne mbëgg Palmarin Ngalouy fi lañ doon entraîner mais à la fin relié nañ fee ne ci côté boobu aussi ban léral nga mëna andi askan bi merci beaucoup man bokkoon naa ci comité de lutte Ambroise Sarr école de lutte Ambroise Sarr bokkoon naa ci mhm. man maa nekkoon responsabiliteur ñun ñoo doon ñëw tout le temps chaque ngoon di bokk ak entraînement di xool mbër di leen di tàggat euh, yàlla def ñuy doxal di doxal di doxal di doxal ba jëmmi jamono euh, la tax man ma wàññi sama tànk en tant que responsabilité je pense très bien que mbër bu ci mën am combat à part ki koy engagé ménagère bi responsabilité bi da ko war a direct daf ko war a yegg. Mm, ci équipe bi man maa nekk responsabilité. Mm-hmm. alors que ñu toll moment boo xam ne. Mm-hmm. damay jékki-jékki rek ba ñu ne mbar mi am na combat. Mm-hmm. mu nekk loo xam ne lu yàgg la. na ma koy déggee. vraiment ak waxtu bi ma koy dégg. du yoon. mais damay obligé dem. parce que bëgguma feeñal dara. ba amee amaat. man ma toog. parce que nous gis une école de lutte bi fa dara c'était juste pour nous faire pour palmané fi mu jaar ci ci béré ak li fi jaar ci ci li fi li fi champion euh, pourquoi Nous ñu am ko mu sommes ci commune bi former école de lutte ñun ñëpp ci pour vraiment former boy pour gagner fi ay champion champion donc pour nous, il fallait lu ne jaar fi mu mais bu demee ba li am loo xam ne fi mu war a jaar jaaru fa day yàq ba ma gisee ne nag fa ñuy mujj du nekk loo xam ne dina tegu ci yoon parce que yi lu dul yoon mu ngi commencé am man ma ma ma wàññi sama tànk dematuma continuer woon na nag école de lutte bi continuer woon na ba jusqu'à présent nag ma fan la mujjee ndax mu ngi fonctionné ba léegi wala fonctionné tul en tout cas man dematuma dama bàyyi en tout cas li ma léegi ba léegi daal mbëgg yi daal entraîné ñu foofu très bien bon xam nga loolu mënatuma ci wax lu bëri parce que ba ma bàyyee ñàkk a dem boobu laa géej a gëstu lan moo xew école de lutte ba ndaxte euh, benn ambition la amoon pour xale yi jaar fi vraiment ñu génne fi ay roi des arènes ñu am fi ay champion champion euh, yàlla tax loolu antuwul li tax antuwul tam man dama teel a gis euh, gis sama bopp foo xam ne vraiment joxuñ ma gedd bi ñu ma war a jox mm-hmm. ma toog mm-hmm. loolu la woon mm-hmm. euh, diw joxuma ko nag wala diw joxuma ko jiñu ma ko kenn l'essentiel ci école de lutte bi gëdd euh, gëdd bi ma waroon am amu am amuma ko ma toog loolu moo taxoon ma toog vraiment boobu laa cege ja xam dara waaw ba léegi grand Daouda nga nekk président comité bi yow wàllu làmb fii ci ni euh, dinaa laal benn point aussi mooy ñëw ci cadre mbapat yi gis nañu mbapati fi am des fois dañuy goudé même ni ñi dañoo bëgg sétan mais bokkal nga leen mbapati mbëgg bala ñu dugg mu def ay minuit wala une heure du matin mbëgg di sogo dugg ay 4 heures du matin mbapati di dess lolu en tant que président ban jangat nga ci def ak ban appel ngay lancer mbëgg yi ak ñi nga xamné ñoy organiser lamb yi merci beaucoup merci li tax ma la merci beaucoup am nañ ci ay djégo yuñ ci doon def mu indi constat suñu biir Hmm. parce que man dama toog ba gis ne. Hmm. trop c'est hmm. mbapat yi guddee nañ trop. non seulement guddee nañ. mais respect bi ci war a am amatul. non seulement loolu. mu ngi commencé di am violence. booy yi ñu ngi commencé di xeexoo seen bopp. te li ci gën a li ci gën a pire mooy te nit ñi xamuñu ko. tey laa koy leeral ñëpp xam ko.

lam mbapat yi dafa bokk si ñoom ba tax su nawet ji jot si man ma jogal sama bopp dem sous préfecture wax leen sama problème ne leen kat saison bi teg na mais it mënuñoo ñàkk tegg mbapat parce que fi nit ñi toll si mbapat yi la ngeen jàppale ma di ma couvrir di ma defal ay autorisation ñaan leen wax ak ñoom ñu ne ma nag nañu fexee def la tout mais violence bañ ci am histoire bañ ci am parce que gaañante bu ci amee waa day nekk loo xam ne vraiment day doy waar torop dañ ma koy may di ma defal ay autorisation di ma faveur di ma favoriser mais terewul tam ku ne xam na ne comme saison de lutte bi tëj na bu ci nit jamee nit mu dee seen i mbokk porte plainte man mi président fu ñu teg tànk ma teg fa tànk coono dal di ñëw parce que yaa naa jiite lépp te it ma engagé lépp may def autorisation yi donc au nom des la euh, maa may dem fole wax ak ñoom pour loolu yëpp mën a am kon may jiitu ci yeeg yeeg wàcce bi ba ma gisee ne affaire bi mu ngi gën di guddi histoire a ngi ciy bëgg a dugg ma ne comité bi ah am na lu xew mbapat yi ñu kon ñu toog suñu biir wax ne mbapat lii la ñuy def mënatuñoo engagé mbapat maanaam mënatuñoo bàyyi mbapat yi ñuy teg ci conditions yi ñu nekk lii mën a nekk nag mooy ñun nañoo génne suñu responsabilité ci ci teg mbapat guddi bu leen jaralee te bëgg nañ teg nañu ñëw ñu waxtaan bu ñu waxtaanee ñu xool solution bi ñuy trouvé donc ba ñu waxee loolu ñu dem ci chef de village yëpp wax ak ñoom ne carrément bëgguñu nit autoriser fi nit mbapat parce que ñun duñ ci dugal suñu loxo te wàllu lamb ñun ñoo ko yor ñu dem ci Dieng dem ci chef de village Diakhanor ñëw père Abou moo fi nekkoon Suisse la ko fekk ñu dem ci adjoint ñëw fii si ñaar suñu chef si ñaar chef de village yi ñu dem fa wax leen ko ñoom ñëpp ñu ànd ak ñun ci kàddu bi dem sous wax ko fa léegi ba ñu demee nag ba loolu sës bañ ko déggee booy fippu ne dinañ tege waa ko Ambourage mm-hmm. Ambourage forcé ne day tëgg mm-hmm. ba tax na moom mm-hmm. mbabat bu mu buggoon teg Fatick la imposé woon tollu Suisse woote Fatick pour utee fa autorisation pour tuutal ñu bañ ko waxee faa Fatick waa Fatick man la njëkk a woo ba mu def ko wax rek ñu woo ma xamal ma ne nag xamal nañ ko ne yow rek yaa ko mën a jox autorisation donc ma posé la question foofu rek nit ki nga xam ne da nga ko jël conseiller nek président jël ko conseil conseil lan lay jëriñ ak lan moy mo conseiller je pense très bien que bu lolu amé lu mu tollu tollu Suisse war na ma téléphone né mo président amna luma dégg amna luma lu wax lu xew mo wax ko li xew mu am lu ma digal parce que mako ko jël conseiller damay déglu xalaatam damay déglu cadeau mag la moo ñu jiitu affaire yi la muy wax mom lolu laay jëfé ba mu ñëw mais deful lolu donc wàcc na yoon and ak boy ci liñu ci ci liñu xëc dara mu jox soti parce que man lañu favoriser. man ma am deug may président. té li ma wax dafa jaadu. par rapport goudé bi. par rapport histoire yi. par rapport ñaka jox ñi nga xam ne saytu lolu cër. lolu mo fi amone vraiment mu nekk lo xamné man suma ma walaayil azim bu nawet xese ba jot mm. chaque semaine mbapat am ba keroog nawet bi di wàcc man su ma sañoon mm-hmm. loolu mooy am parce que sama objectif mooy mm-hmm. palmarin ëpp fépp làmb mais mm-hmm. nan nan la ñuy def ba loolu am ki ngeen jiital jiitalul boppam yéen ko fal jox leen ko cër bi ngeen ko war a jox mu delloo leen ko ngeen di bokk waxtaan di trouver terrain d'entente li ngeen bëgg a def ngeen def ko parce que tey jii mun nañu toll foo xam ne tey jii bu ñu bëggee sax du ñu joxe caution ci ci ci mbapat mais loolu waxtaan moo koy indi mun nañu dem ba lépp oyof ba kenn ku ne am sañ sañu tegg te boo tegee dang ci ciy génn mais lépp ci biir waxtaan la la la la bokk parce que gis nga comité bi complété wul sax palmarin ak ni mu toll comité bi complété wul la moo tax complété wul kenn ku ne mu yaa ngi toog toog sa ruku nanguwuloo dugg te noppi woo nan lay doxee lii mooy suñu problème mais mbapat yi moom li gën a wér mooy man su ma sañoon chaque semaine mbapat am man mais nag nañ ko teg ci condition yoo xam ne vraiment kenn ku ne da ciy gis boppam guddee bi dafa jaaduwul yoon te guddee bi nekkul ci mbër yi ci ci ci promoteur bi la promoteur bi bu tegee wax li mu wax mbër yi defuñu loolu heure bi bu jotee ñu tas làmb ci suba mbër yi ñoo la fay jiitu loolu mooy problème bi ñoom ñaar bi ñu def mm-hmm. donc vraiment euh, mbër yi defuñu dara mbër yi dañuy wut yow nag vraiment buñ la jéemee puus nga nga nga nga ànd ak ñoom ñoom ñu def li nga xam ne moo leen arrangé moo leen arrangé arrangé wu leen sax mais xam nga bëre fi boy yi tollu léegi ci bëre moom bu nga yàq si bëre bugguloo njëkk a dugg kenn sa morom buggu laa njëkk a dugg nga yónni ay boy ñuy yóorlu kenn ku ne bu defee loolu bu mu guddee mais nag bu baare amee maanaam bu amee heure baare am walaay la azim kenn du xool kenn sa montor ngay bugg di xool xool air bi nga xam ne boo ko dugg li nga tardé nga ñëw doo xool kenn mhm. donc vraiment loolu laa am pour wax ko ci côté boobu mbapat yi moom franchement parler mhm. pour ñëpp xamandoo ne man mhm. su ma sañoon chaque semaine mbapat am man personnellement man mi nga man mi président su ma sañoon chaque semaine mbapat am sans souci mais nag na ñëpp ñëw ñu bokk waxtaan ci loolu toog sa ko di wax wala di dingat nit ki wala di wax loo loo xamul ci moom day indi erreur réeroo lay indi la ngay wax ci nit ki mën na am mu nekk loo am mën na am mu ñàkk a nekk loo am mais it du ngeen mos a déggoo parce que it comme yow yaa ko fi teg te nanguwuloo ñëw waxtaan ak moom nanguwuloo koo laaj sa xalaat ngay demee am na loo xam ne mënul ne nekk président ku doonul dara demul dikkul nga tollu fi di leen di dajal coono di dem ci ay réunions yi di ñëw di yéeg di wàcc ba pare di déglu ñooñu pour ñu wax la rek nga def est-ce que logique na merci beaucoup noonu la demee waaw côté boobu moom noonu la demee. Hmm. waaw mais ba léegi grand Daouda ñu des eh, ci côté palmarin bi nii en tant que président ñu dégg ne palmarin fii nii ku bëgg a tëgg làmb dangay joxe 10 pour cent 10 pour cent ma koy dégg est-ce que mën nga andi ay leeral ci ci côté boobu ak promoteur yi ñu xamul 10 pour cent bi. merci beaucoup xam nga dafa am lu jiitu loolu. Hmm. peut-être palmarin. Hmm. am na fi ñoo xam ne li ñu xam ci làmb xamuma ko. am na. nit da ngay nangu dogal. dañ maa jiital rek mais ñi xam ci làmb lu ma xamul bari nañu. ci gox bi mais it yàlla dafa def tam. buñ ma gënee xam làmb tam ma gën leen a bëgg làmb. gën leen a bëgg gox bi. surtout nit mën na ma gën a xam làmb. ma gën koo bëgg làmb gën koo bëgg palmarin. li tax ma wax loolu am na fu ma ko teg man. parce que xam naa ne lépp lu mun a war a jëmale Palmarin kanam du lamb rek côté bu mu mu di doon wallahi azim bu dee wootee bu ma ko déggee dinaa teew bu ma fi nekkee bu dee lu ñu war a wax am naa ci xalaat bu ma wax bu dee lu ñu war a def man dinaa dem def ci li ma war a def kon kenn gënu maa bëgg Palmarin donc euh, problème mu dix pour cent yi lamb ñun benn benn benn cat rek lañ ci teye mais fa soxee ko wala lambo base ba fa mu ne mooy CNG. CNG moo teg. ay chartam hmm. pour cent. muy am. du la am. Hmm. du la am du barke hmm. dafa dogal pour cent di appliqué. Euh, ñu may ñu nit règlement intérieur. maye nañu côté bu ne règlement intérieur mais règlement intérieur dafa jaadu ci li ñu wax sa réglement intérieur na doon loo xam ne boo ñëwee teg ko du sorante mukk ak règlement normal bi warul genn ci règlement normal bi ba wuuteeg moom totalement dafa war a niroo ak moom ma gis ne jamono yooyu ñun attanuñu lu bari quartier yi ñoo doon tëgg xawma wala dëkk yi attañuñ ñu lu bari mm-hmm. ma ne mm-hmm. dix pour cent yi nañ ko bàyyiwum ci suuf ba jëmi jamono ñu ko mm-hmm. ñu di ci dund di ci dund di ci dund ba daaw quartier ko bof ma dab leen parce que man damay cité de wax mu leer quartier ko laa dab bi ñuy waaj a tëgg fekk leen ngaan ba wax leen argument yi nga xam ne moom laa bëgg a doxal ñu ne ma ah ñun dey comme waxuñu ko woon depuis boobu ba léegi dañoo bëggoon nga jégal ñu ñu génnee ko ci miis bi xam nga am na ñoo xam ne boo soree ci biir am na ñoo xam ne ci miis bi lañ ko doon génnee mais du yoon dañu ne dix pour cent boo tegee sa miis ba pare nga se nga xool la mu ci dix pour cent nga teg ko ci lagi ma wax len ko ñu ne ma ah jàppale ñu ren ji nga génne ko ci miis bi be dewen comme dégg nañ ko motax daw ñu 10 quartier ci bi ce qui veut dire ren sama quartier mo ñëk tegg pour nga pour nga tegg dëgg te bala tegg di ñëw ñun dañu dem réunion fatik mak père amu ñoo fa daje per amu ñoo daje fatik ci réunion CNG bo ma ngi jogo a doge joge gej jóge salbi, mu ngi ci salle bi ñewna ci salle bi te gisuma seize bi mu tok sama seize mo top ci mom bi may dugg si ci portable lam la ne gisuma man bu yir nek ci ginaaw lam fa wax lu non ñak la parce que ñoom ñoo bokku palmarin te lu de de de de de de de de sama nijaay la soit sama papa soit sama sama mak. te yàlla mi ñu tim xam na ne cër boobu jox naa ko Mako jël sama premier mandat sama premier mandat jeex dundul ak man dalaru rafet ma ñëw deuxième mandat wax ko ne li nga def ci mandat bi passé rafetul devant tout le monde maire yi moom père ambu Mon père ambu jëlaat ko conseiller ci deuxième mandat deuxième mandat bi ñu nekk nii tuddatuma te jotewuñu dara xam nga loolu rafetul mais du càggeen nit du ko gis sama kanam bu may dox doxewuma loolu dunduma loolu man li may dund man palmaanaay laa bëgg bu nit ñi soxla woon tey tey tey tey pour ma jox leen comité bi ma jox leen ko nekk ci samay activité te du téye palmaanaay bëgg bu ma koy bëgg day gën a yokk bañ nekkee ca réunion ba nit ñi di jël parole di xool lay doxal làmb nan la ñuy def ba làmb dox ba mu jëlee parole daa jóg ne man li ma indi mooy suñu problème ba Palmarin benn nit daal moo fa nekk plus de dix ans yoral ñu comité ba liggéeyul deful tus di fontoo nit ñi deful dara di dox di taxawaalu liggéeyu fa dara fii ne na ni nii ne sax mu nga géej ci bato yi deful dara liggéeyul tus maa ngi ci ginnaawam ne daal dañu ñëwoon daal pour daal ñu régleel ñu ko pour ñu changer ñu ko président CNG Bira Sène moo ko ne attends Ambroise kooku ngay wax noonu seen président bi nu mu tudd mu ne Daouda Ndour déet am ku ne noonu daaw daa ngi nii toog mu gëstu yem ci man lu doy waar laa lay wax nii mu gëstu rek tiim ma fi ma toog nooyuwu fi ma toog laa toog rek yëngatuwu ma parce que man xam nga ne man niñ ma yaree ku am dal la ma sama dara sama àdduna mais it du tiit xëf du ma ko def amul dara lu may ragal ci sama dundu parce que xam naa ne dee su ma koy def bu dee ni tama jam ma dee wala ma toog suñu borom ma tedd nelaw yeewuma damay xam ne lépp ci dee la rek fa yem fa yem point moo tax ma ragaluma wax ba pare kenn wax keneen keneen keneen ma jël parole leeral la fa am li am fii ma leeral ko buñ buñ jogee ci lii nii ci 10 pour cent yi dinañ dugg foofu ma leeralal li nga xam ne moom laa fa leeral. Mhm. su ko defee 10 pour cent yi wax nañ ko ca réunion boobu. Mhm. ci kanamam. Mhm. ne nañu appliquer 10 pour cent yi. nañ ko appliquer partout. mu di ko dégg. ba loolu amee boobu lambu sam-sam bi ses na. ñu ñëw. lambu sam-sam bi jot sama quartier la. man boo yi ne leen. réunion lañ ne ne leen. dix pour cent moo am mise bi ngeen teg calculer leen dix pour cent ngeen teg ko ci. Hmm, par exemple boo leen tegee man ne leen pare leen seen dix pour cent ngeen teg ko ci sama quartier teg moo njëkk a teg. Hmm. te ngeen xam ne bu loolu amul lamb ji du dem. Hmm. parce que duma ko nangu. parce que après ay lamba yi ñëw. te man maay man maay responsable ci loolu. ñu teg ko. joxe joxe ko. mooy lamb ju neex bi rek. jeex na. baako boofu ñëw. ma woo jooj téléphone ne ko problème mu 10 pour cent yi ma la waxoon daaw est-ce que yaa ngi koy bàyyi xel mu ne ma waaw ñu dem ba lamb ji jot ba ñu indi seen euh, xaalis mu jooj ne waxuma ko woon commencé di indi ay polomique xam nga yooyu noonu vraiment da di yoo xam ne rafetul suñu diggante mais après def nañ seen 10 pour cent alors que ci laa commencé di dégg ci suuf ne waa Ngéej commencé nañu di xultu ci suuf ne du ñu joxe seen dix pour cent ma ne man li may xaar làmb jalaay xaar duma wax ci loolu ba ba mu sori man làmb jalaay xaar dinaa xam ndax man may président wala ña koy wax ñooy président wala man ñooy wax loolu am wala man may wax loolu am ñu dem bi mu gënee jege man ma woote au niveau c wax leen li bëgg a am ñu xamal ma li nga xam ne loolu lay def. loolu bu bu loolu amee. Fatick bi nga xam ne moo ñu boot. am na lettre bu Amouraas bind joxe ko ci Mendy mu jaar Fatick waa Fatick yëpp yëg ko gars yi yëpp woo ma téléphone. xamal ma ne ñu ngi sa ginnaaw. lu mun di am wooñu yow lañu àndal. parce que loolu fii lañ ko réunion te Amouraas dégg na ko. kon waa dëkkam bu ñuy wax loolu am na droit ne leen. Mhm. eh def leen doucement. lii sama kanam lañ ko waxee CNG loolu la wax. mais lan la ñuy naan mhm. président dafa waroon woo askan bi wax leen ne lii ak lii ak lii moo am mhm. comme père am bu fekkee na ko mhm. fa mu amee <laughs> dëkkam buy teg ñu commencé di wax loolu wax dëgg yàlla ci la bokk man sama conseil la lu tax mënul wax jël jël part foofu xamal leen ne lii kat lu ñu dogal la CNG moo ko dogal du daaw daa ko dogal tooguma sama biir kër ñëw di dogal ay 10 pour cent 10 pour cent ya amuma si bu ñu xa bu doon 15 dañ koy xaaj awma ci xaaju 15 man arbitre yi ñooy moom lii. Mm-hmm. lii dem ci. comme médical bi. kon mm-hmm. ok mm-hmm. dafa am yoo xam ne nañu góor góorgóorluwaat ci information yi. kenn ku nekk góorgóorlu. loo dégg te amoo ci lu leer nga laajte. boo laajtee au moins di nga fa jëlee loo xam ne. peut-être dina la convaincre. wala boog nga nekk koo xam ne dangaa bañ a bañ nga bañ. parce que dama nangu ne doomu aadama comme lépp looy nangu ci kaw suuf. dafa am luy tax nga nangu ko mm-hmm. lépp looy bañ ci kaw suuf na am lu tax nga bañ ko mais pour bañ ngir bëgg a bañ rek mm-hmm. loolu rafetul te man ni may dundee mooy mm-hmm. dafa am borom xam-xam bu ma wax ne li nit ñi di wax du dëgg lii am suba mooy dëgg moo tax man loolu lay jafe looy mun di wax ci nga demee aw ma sottantu l'essentiel ci cadre ci cadre bi ñu ne di ci wax bu dee ci sama côté la man li am lay poursuivre ëllëg ak si biir lii am moo ma ñor donc vraiment côté boobu loolu laa la ci mën a wax 10 pour cent yi noonu la demee. noonu la demee mhm. mais grand Daouda ba léegi ñu gis ne euh, yaa ngi sama daaw euh, drapeau chef de l'État bi amoon euh, bokku woon bokkoon nga ñi ñëw woon région de Fatick ci côté boobu aussi ba leeral nga mën a andi askan bi su ko defee mu nekk loo xam ne ma kontaan ci lool sax mhm. du man rek maa nekk région Fatick. comité région Fatick yi bari nañu mais du ñëpp a fa nekkoon lan moo tax ñu cité Daouda pour yóbbu ko pour mu ñëw bokk ci ñi yóbbu euh, mbër yi équipe bi drapeau chef de l'État xëy na yaakaar la am ci man bu ma nekkoon nit ku ñàkk fayda du am bu ma nekkoon nit koo xam ne amuma fulla du am bu ma nekkoon nit koo xam ne li may def xamuma ci tus du am kon mhm. am na yaakaar bu ñu am ci man mhm. ba tax ñu woo ma mhm. pour ma bokk ci ñi yóbbu équipe bi yàlla def tam ba ñu demee vraiment ma am ci satisfaction bu doy damaa dem ñu denk ma mbër yi mbër yi chaque suba teel maa leen doon yee six heures du matin ñu jóg selmo ma yóbbu leen ñu defi réveil musculaire étiré wu dem terrain ba def quelques tours étiré wu ñëw toog balaa ñuy dekki ma saytu leen ñu dëggal ma ñuy dund si loolu mais tuntu bu métti parce que ñëpp dañu waxoon ne équipe bu bi baaxul yow xam nga ci dara dégg nga ko mm. ñëpp mm. ba ma dëkk nii ba ñu xamee ne ñoo yewi équipe bi wax ma doon dégg mm-hmm. euh, dama nit koo xam ne loolu nee naa la loolu yëngalu ma mm-hmm. mais peut-être mënoon na sax yàq sama xel mm-hmm. mais yàlla def man ma am dal ànd ak tey xam ne Euh, comme ni ma la ko waxee sànq li nit ñi di wax du dëgg. Mm-hmm. lii am mooy dëgg. foofu feeñ na fa. Mm-hmm. équipe bu Fatick bi baaxul baaxul baaxul finaalu na. Mm-hmm. te final ba ñëpp gis nañu ni mu demee. Dakar gagné nañu. vraiment ñu di leen di féliciter bu baax a baax. parce que it bu dul dara. ñaari doomu palmarin ñu nga fa woon. kenn ki sama jarbaat akkan la Babou Kaling. sama mag a ko jur. Euh, Mbaye Diop. sama jarbaat la. kon man amuma dara lu ma ciy wax lu ñaaw te ndaxte pertu ma mhm. mais it mhm. du caageen dama bëggoon Fatick jël ko parce que équipe boobu laa yóbbu mhm. mais pertu ma dara euh, ma kontaan ci bu baax a baax a baax a baax a baax mais la nit ñi doon wax amut vraiment noonu la demee Fatick nii nii nii nii nii nii waa Fatick ñu may woo di ma xamal ne le vingt cinq incha allahu rabi éliminatoire la ñuy def le vingt cinq su soobee suñu borom Mm-hmm. le vingt cinq la ñu war a def éliminatoire mm-hmm. ñu ma koy xamal xamal ma ne mm-hmm. quelque soit la condition naa ñëw teew kon am na ñu ci man yaakaar yaakaar bi ñu am ci man yàlla bu ko yàlla tas man noonu laa leen yaakaaree di leen di wóolu di leen di doylu tey wax nit ñi ñun yàllaa def ñu dekk ci région de Fatick ñii dem ñi demul ñi nga xam ne ay mbër lañ ñi doonul ay mbër ñi am doomu mbër ñi amul doomu mbër ñun ñëpp nañu booloo xam ne Fatick mooy suñu gox région yi ñooy xeccoo ku bokk région Fatick na nga ñaanal région de Fatick pour ñu jël ko nekk ci région bi di ñaanal yeneen région ñaaw na te am na fi am na fi de ñu demul te wax dëgg yàlla lañ doon ñaan yàlla defu ko parce que bëgguñu woon sax ñu yegg final li ci xew dafa bari loo xam ne Euh, peut-être euh, ñu bàyyi noonu bañ koo wax fii mais am na ci lu ci xew loo xam ne dafa ñaaw ñaaw na trop mais yàlla dimbale nañu macha allah loolu am na solo grand Daouda mais ba léegi ci côté Fatick boobu région de Fatick gisoon nañ ne Doudou Sané moo nekkoon capitaine maanaam moom moo bootoon boo yi mais Doudou Sané yaaga sama temps yi la évité nañ ko ci benn télé euh, mu lay gërëm maa ngi gërëm sama grand Daouda Ndour sa diggante ak Doudou Sané lan la Euh, Doudou dafa nekk nit koo xam ne dafa sori ci man ndax njàmbaaram mhm. ndax bëgg li mu doon mhm. ndax bëgg li muy def nekk xale am lu mu gëm mhm. dégg nga ay interview yu bari fu mu wax ne man ba may yéeg poids lourd gars yi nañ ma ne woon waruloo yéeg poids lourd parce que mënuloo poids lourd yi dara mu ne leen bëri poids lu ñuy miin la mm-hmm. bàyyil ma dem ñu di ma daan rek saa moom leen miinee duñ ma daanati mm-hmm. allahu akbar loolu am na mm-hmm. parce que boo xoolee Renault ren def na set sorties set drapeaux daanoogul te loo ci xamul def na deux combats ren deux victoires bu ci yàlla àndee sax yàlla day moo xam lépp moo man lépp mais man bëgguma mu daanu man wallahi asim bëgguma mu daanu année blanche la war a def ci daanu bañ a daanu dama ko ko yéene parce que nit nit rek ngay doon am na fu nit di toll ci yow lum la jox delloo ko ko dama koy ñaanal yàlla rekk parce que xam naa ne wax na baat bu am solo ne Daouda bu amoon ay milliards ma doon mili millionnaire ni mu ko waxee sa xamewoo ko noonu bu amoon loolu mooy am parce que sama xol dafa fees sama xol duudu ndaxte ci biir làmb bu nit ñi reeree mbir nit ñi nañ bañ a reeree mbir mbër bi ngembu nekk ci pression ak mbër mi tekki ngembam nga fekk ko këram wala nga dajeek moom muy dox ça fedd deux non loolu dooma ko wax parce que man Doudou Sané toog naa ak moom ni ma toogee ak boobu sax làmb amul man xam naa ko nit ku baax mhm. nit ku ñakk ki ñaan mhm. drapeau chef de l'état dem nañu ba tollu foo xam ne mhm. en tant buteelam yi am na ci buteel yoo xam ne boy koy teel cumbukaayam yi daf dafa génne quelques bouteilles ne leen kuy bëri ji ci boy yi nag sottee ci bouteilles yi loolu bariwul yombut champion la nit ku ñàkk ki ñaan la nit ku baax la yàlla ko yàlla jàppale fi mu bëgg a yegg mu yegg fa côté boobu moom loolu rek laa lay wax dañu moom sama nit la à cent pour cent yàlla xam na ko wallaay euh, loolu am na solo grand Daouda euh, fu ñuy résumer waxtaan wi mooy euh, nga nekkoon mbër Euh, bàyyi bàyyi bëre mais yaa ngi ci làmb ñu gis ne ne euh, Palmarin bëri woon na ay champion plus précisément Palmarin ngalu bi nga dëkk fii nii mais gis nañu instant yi mbër yi bëreetuñu gars yaa ngi dem Espagne ñi nekk ci bateau yi ci côté boobu aussi ban message ngay lancé booy te gis nañu aussi booy manqué nañ ay moyens parce que euh, gars yi ñu ngi jooytu bëgg nañ am salle de musculation ban appel ngay lancé autorités yi ak bonne volonté yi. macha allah solo man côté boobu li may wax mooy. Mm-hmm. xam nga nit ki ci nim lay gisee rek noonu la lay jàppee booy itam dama bëgg ñu am benn responsabilité benn benn responsabilité bi ci seen bopp gis nga ki choisir bëre di ko def am na responsabilité bu muy am ci boppam di ko doxee di ko wéyee ku ko gis bëgg ko ku ko gis bëgg koo jàppale. Ah, bu amul ci booy yi fii instant yi nii wala. non c'est-à-dire bu ma waxee loolu damay lancer appel pour ñoom ñëpp ñu déggandoo baat boobu xam ne. gis nga bëre. ñun jaar nañ ci. gis nañu ñoom booy yi wala boog ñu nettali leen ne diw la woon diw la woon def na fi lu ne. te gisuñu ñu yor dara. loolu la yàlla dogal. tey làmb. alal la. valeur valeur bu mag moo nekk ci làmb tey. ay tey. Mm-hmm. da ngay xool bu baax li ma lay wax tey jii ci làmb ji mbërantaan maanaam ku ñuy coow ne kii dafa mën a bëre ba mu nekk loo xam ne lu wër la côté yëpp la ma ne barewul da fonk sa bopp am fulla am fayda bëgg li ngay def xam ne fii jom rek moo ma fi war a jaarale ba ma jaar fi ba genn jom boobu nga di ko wéyee ñàkk caaxaan respecté sa bopp parce que nag attention bëri dafa am ay rawaan rawaan yoo xam ne selon ni nga jàppee sa bopp rek foofu la rawaanu bëri dépendre bëri boo nekkee ku ko bëgg gëm ko di ko dund di ko jëfe di di ko nelewaale am na fooy toll da ngay rawaanu bëri dañ koy am mais nag lu xeetoo caaxaan bu nekkee ci yow doo mos a am ay rawaan kii am rawaanu bëri mooy kii ko bëre di ko tëddee di ko nelawale di ci wéy fonk ko respecté ko tegu fi mu war a tegu par A ou B da ngay am ay rawaan bu bare da ngay dem ba toll foo xam ne loo war a defee foo war a seetaanee da nga koy gisal sa bopp bul sonn su ko defee nag loolu ma ne boy nañ góorgóorlu perte ñu dara mais nag ñi war a def je pense que dama jàpp ne ci ñoom la ñuy xool euh, kon ñoom nañu am benn góorgóorlu bi gis nga tefes bi rek salle de musculation la bu fekkee ne topp nga fi nga war a jaar bu fekkee ne entraînement yi teg nga ko fi nga ko fi nga ko war a teg balaa salle de musculation di ñëw gis nga entraînement naturel bi dara gënu ko ci xale salle de musculation dafa am fu mu fooy toll war koo laal mais am na fooy toll soxlawul parce que mbër mi entraîné naturel di contact di def mouvement yi mu war a def di entraîné normal yaramam mi bàyyi hmm. doo ko gis mu bëri fii mukk ba jeexal particulièrement ñi ngay gis fii ñuy bëri ba mu wóor la ne ñuy lase nañ hmm. muy ñuy yëkkati weñ kon yëkkati weñ bi am na ci solo mais li ci gën a am solo mooy entraînement naturel hmm. ak di ko jóge entraînement ñëw lekk ba suur toog ba li nga lekk wàcc nga tëdd nelaw ba ngoon nga dem entraînement gis nga tëdd nelaw boobu lépp loo liggéey day dugg mais di dox di taxawaalu li nga liggéey zéro lay doon dafa mel ni euh, nga jël ndox rek di ko def ci pañe day sànn hmm. entraînement loolu lay demee hmm. da ngay noppaleku tey sa bopp hmm. entendement bi dugg leneen nag mooy autorité yi. vraiment aussi ñu ñëw seen avant avant ngay laal ci autorité. ci ci côté boo yi nga laal sànq. gis nañ ne yéen am ngeen euh, benn mun naa ne révélation la. muy amee double moteur. yaa récemment démb moom moo finalu euh, poids léger fimela ñoom ñaal euh, mais dañoo gis keroog mu dugg Adrien ko bi poalo bi jaxase fofu yëngal fofu ba jël lamb gi sengu en tant que mbow raw kaddu boy bobu nek espoir bi palma ngay fini plus précisément palma ngay ngalu ban kaddu ngay lancer ci boy bobu aussi euh, côté bobu man lima lawa, la wax moy sax amna lu dess ci amet lo xam ñewugut moy mooy lan te ñun ñoko wara indi gis nga xalé boko amé mu tollu fi mu tollu tay mm-hmm. boy ñom ñep mm-hmm. gis nga ñun mag heureu entraînement xalé yi dañuy war di dem mm-hmm. wacc sur le terrain wacc sur le terrain taxaw di len di xol mm-hmm. kenn ku ñu tek kenn ku ne ñu tek ko fi mu wara teggu parce que heure bobu dañuy am jot mm-hmm. mais gaay bulut bi lañuy top kenn ku ne top soxlam wala nga tek ataya boy demal sen bop entraînement ñew dama la ne ki entraîne bopam du am condition bu doy ki entraîne bopam japp bi mu wara japp du ko japp muy footballeur ba muy brekat ba dañ lay internet fi ngay sonnee ñu forcer la nga jokk loolu mooy indi nga jàpp booy yi nag li des ci ñoom ci côté entraînement ci côté bëre foofu la léeg-léeg nga toog booy yi di leen di seetaan ñuy bëre contact nit def dara nga ne ko eh taxawal action boobu warul demee noonu ni la war a demee wax ko ko bu ñu demee ba yegg si foofu mu def li nga ko wax ba xool ndax ak li mu defoon ndax benn la walla du benn loolu mooy développer xale parce que xale doole lay demee bu yëgee doole ci boppam bëri bi yëpp dina am technique mais doole moo ciy ëpp doole nag bu bëree ànd ak tuuti technique rek boromam jàll léegi nag vraiment man li may lancé mooy ñu fexe ba côté yëpp muy ngunumaan muy ngéej muy jaxanoor muy jiféer muy fépp commune bi mag ñi nga xam ne jege nañu boy yi nañu fexe ba boy yi bu ñuy dem entraînement ñi ci am jot nañuy dem di teewe entraînement boy yi bu mënul nekk toujours di nekk temps temps saa yu jot amee ñu def ko pour yokkal boy yi xam-xam pour aussi encourager leen parce que nag xale buy def dara di gis ay mag day yokk jom te loolu dafa am lu muy def ci moom bu ma paree foofu ma ne autorité yi dëkk bi kenn waxu leen pour ñu def salle musculation maye ko nañ def salle musculation ñi dul mbër sax dañoo soxla di internet. même joueur bi di fay. Mm-hmm. nit ki bu fekkee ne au moins cent la waroon fay nga defal ko ko trois cent mm-hmm. dafa am lu muy def. Mm-hmm. te loolu sa xalis lay bugg di doon. ka fay nekk dëkk moniteur. da nga ko ciy bugg di fay di ci am dara. kon du pertement. vraiment bu kenn nit mënul engagé loolu. ñoom nañu gisee seen biir. jàppale ñu ci côté boobu parce que nag sport bi am na jéego jéego boo xam ne tey jii benn champion boo xam ne jaar na fi ba yegg roi des arènes vraiment njëriñu dëkk bi rek lay doon gis nga ñi fi doon ay roi des arènes li ñu def si seen gox hmm? kon war nañu fexe ba loolu ñu am ko te nan lañ koy amee mooy lii ñoom autorité yi ñu fi am doole war a mën a def loolu vraiment bu kenn nit mënul def loolu nañ booloo seen biir ñefeel ñu loolu te vraiment teg fa ay Yohamne, sen xam ne seen xaalis tôt ou tard day génn loolu vraiment buñ ko mënul maye nañ ñu jàppale ci loolu pour xale yi aussi vraiment seen sens la ñun amuñu xolu xolu ki ñaan dañoo bëgg xale yi def deful am lu amut parce que loolu moo fi des suñuy doom la ñu ñoom ñëpp bi rek am Fini nii boo toggee ngallu kër gu weex bi ba seeseen ay champion yi kese ñoo nekk ci biir dëkk bi man bo fa demee dafa am ay champion man dama fi cité ay boy cité naa fay booy mm-hmm. jarbaati ñoom aas bi mm-hmm. benn booy benn mm-hmm. fambu ay booy jibi ay am na ay yeneen booy man dama xam seen tur booy yooyu dañoo war a mën a jàll boo duggee biir ngeej dafa am ay booy yu kale booy ndene boobu noonu dafa nekk booy boo xam ne poids bi mu yor eh, bu gënoon respecté waat bëre poids boobu mun na ci kale équipe nationale bi am ci alal parce que poids bi dafa nekk poids boo xam ne développé wul te li mu mën ci bëre boo ko xeebee mu trop mu def la li mu lay def kon poids boobu bu ko respecté woon boole ko entrement bu sax bu doy am na place bu muy jot équipe nationale kenn dootu ko jot kon ak yeneen i booy ci biir man xaw ma seen kon booy am nañ fi booy yoo xam ne vraiment xoolal booy bacc grand sampion boo xam ne tey jii champion palmarin yëpp la waroon toon mu ngi nii gaaree ci genou buy metti am na nit ñu am jolle ñu ko mun a jàppale pour mu faju xam naa ngeen ko seeti aussi pour waxtaan ak moom xool ko nag moom vraiment nit ñi jàppale ko bu mu faju pour na mun a del siwaat ci ay ay activité am parce que nag booyu la boo xam ne euh, dafa amoon yoon bu mu bu bu mu jëloon war a dem parce que nag affaire bi du at du ay at du warul doon ay affaire u iñaanante ñi mu fekk si bëri bi bugg leen a romb nañ d'accord ne loolu la yàlla dogal yàlla moo ko bindee noonu mu ñëw rek pour dem kon vraiment ñun ñëpp nañu am benn vraiment xol bi rek yéene leen ñoom ñëpp mais ku ci raw moromam tam ñu xam ne loolu la yàlla dogal rek kenn ku ne gérer gérer gérer gérer ci pois bi mu toll bëri du age du ay at léeg-léeg nga gis booy bu ndaw ñëw fii nga di ko yoral ay bagage te mu fekk la si affaire bi kon loolu ñun ñëpp nañu xam ne loolu yàgg na fi Youssou Ndour ba ñuy bëre muy jàng Youssou man maa ko mujjee yor samay loxo la mujjee mujjee nekk mm. may ànd ak moom fu ne benn muy bëree door sama loxo la ne booy yi fi nekk yëpp ma mag leen kenn ku ne ànd naa ak yow yoral la sa saag mm. gérer la mm. bëggal la lépp kon loolu la yàlla dogal tënt ma ko nangu woon kon kenn ku ne na xool ci man ñu jàppale booy yi ñun ñëpp vraiment doolu daal vraiment nekk na loo xam ne bëgg naa ko képp ku ku ko dégg boo ci mënee dara wala nga am ci xalaat na ci taxaw waaw Grand Daouda fu ñu tëjee waxtaan wi mooy gis nañ ne euh, làmb yi am ci côté bii sax la mën a wax mooy lu bëri dañuy am problème d'arbitrage da ngay gis ay combat yoo xam ne des fois mbëri duñu d'accord ci décision arbitrage bi mais ci côté arbitre arbitrage bi loo ñu mën a wax parce que c'est rare nga dégg ne arbitre bi aj nañ ko te mbër bu defee dara subitement dañ koy sanctionné wala ñu nangu licence am merci beaucoup dugg si nga ci côté bo xamné lu am solo la xam nga li tax mu am solo euh, développer parce que liñ doon wax mako waral comité bi dafa laaj ay comité bi motut corps arbitrage bi Je bay mot plus de 10. ñom sak lamb dañuy tan ñi nga xam ñom nyom ñoo wara arbitre ñi ci dess tok ñi mm-hmm. ma gis euh, démb mom upp nañ diis pourquoi lolu mënul am ni ñangi fi ñu mëna def arbitre ñu ngi fi ñu mëna def formation arbitre arbitre ñu ngi fi bari nañ fi est-ce que nekul manque de volonté manque de volonté ak ñaka bëggul sa dëkk mm-hmm. suñu comité bi néna la motul mm-hmm. parce que comité bi wax ji wax ji yépp ñaka mot bi moko indi ñata lañu te presque presque ñun ñep ngandu lañ tek mm-hmm. et pourtant man ñep lañu woon ñep suma sañon dekk bu ne da ci am ay représentant mm-hmm. waxuma la ben représentant kenn ku ne dekk bu ne mm-hmm. jaxano day am lu mot trois représentant quatre man am ngeej am ngalu am ñun ñep ñu bokk comité bi gérer ko pour fay bobu mo ñew ba ci arbitrage bi ñata arbitre lañ am cinq xawma xawma est ce que mo na est de l'autre acteur Dégol Blaise Mignane mm. jeexut est que loolu yoon la mm. léegi fi mu ne nii bu Dégol defee dara nga aj ko mm. bu subaa looto def dara nga aj ko kuy arbitre moo tax ñuy négocier dina am ñëpp nañu xamandoo ne tey jii bu ñu amoon vingt vingt arbitre mm-hmm. ñu nekk fi chaque lamb ñu copte ñi nga xam ne ñooy arbitre mm-hmm. ku fi ndeful loo war a def da ngay aju sama fulla yegg na fa sama fayda yegg na fa sama bëgg lamb jëm kanam yegg na fa mais ñàkk am effectif bi mu waral loolu yëpp négociation yu métti yëpp loolu moo ko waral du question arbitre duñ ko aj arbitre dañ koy aj bu baax mais si kaw nag vraiment nga am ko fa ko fa remplacer daaw j'étais obligé arbitre film lay dañ doon ñëw fii di arbitre mhm. dama doon jël quatre personnes boole ko ñaari boy fi nekk ñu gérer arbitre parce que amatuma woon ñu arbitre mhm. loolu na askanu Palmarin commune bi yépp mhm. bàyyi si xel bu baax a baax maa ngi lancé appel ku bugg def arbitre ku mu di doon na ma wax si buñ ci amee quelques personnes man daf may jaral keesu comité bi ñu ñoo ñoom ñëpp a ko moom. Mm-hmm. ñu organiser fii ñu organiser fii. formation arbitre arbitrage gars yi ñëw. Mm-hmm. gars yi ñu former leen. Mm-hmm. ñu am ay arbitres yu doy. après loolu aussi nañu fexe ba comité bi gars yi xoolal kenn ku ne engagé wu. ñëw bokk ci comité bi comité bi ñun ñëpp ñu saytu ko. amul ku mu mun di doon koo xam ne tey jii mënumaa bokk ak yow comité bi amut. man li ma soxla mooy ku mun a ñëw ci comité bi tam xamal ne dañoo ñëw pour liggéey. liggéey jëmale làmbu palmarin kanam mm-hmm. loolu laa soxla mm-hmm. tey jii aussi bu fekkee ne nit ñi soxlaatul da nekk fi tam mm-hmm. heure bu ñu defee assemblée générale nañu ne Daouda soxlaatuñ mu nekk fi da bàyyi leen ak comité bi keneen jël mais est-ce que li Daouda mun keneen dina ko mën yàlla rek a xam loolu yàlla rek a xam en tout cas li wér te wóor man euh, am naa euh, vraiment tempérament boo xam ne ak li may encaissé parce que man damay woo ci làmb yi te chaque làmb ma dem dama lay gis foofu waaw am naa Euh, tempérament maanaam damay wàcce sama tempérament be mhm. lu ñëw ma encaissé li may dégg bari na de mhm. li may dégg ak bari mhm. gars jaar nañ ma fu ne mais du ma tontu waxu mbedd mais ku ma wax dara bu bésu tontu jotee di nga dégg lu leer parce que du ma dox ci lu lëndam déedéet comité bi amul dara lu ma yokkal amul dara lu muy def ci man amul tus lu ma ci jëlee au contraire depuis dawak ren réunion yi ma dem fatik yépp ba bés ni ki tey sama xaalis kenn ramu zeeguma ko may passal sama bopp dem ñëw ba may yor sama auto réunion lamb bu amoon fële maa doon yóbbu nit ñi sama auto laa doon yóbbu réunion nitama wax ne comité bi ñëpp a ko bokk du sa xaalis bul auto bi bu mu demati ci merci looy doxati nañ la nañ la jox passe comprendre nga fi may waxee lan moo ko waral bëgg dëkk bi mm-hmm. bëgg lépp jëm kanam mm-hmm. bëgg aussi ñu bañ a gaspiller xaalis bi nga xam ne ñëpp ko bokk gis nga li ñuy liggéey mm-hmm. na ñëpp xamandoo ne buñ fiy jógee ay kayit lañ fi bàyyi yoo xam ne xaalis bi mu ngi nii kii ñëw loolu la fay fekk dem ci pour ñu xam ne rek man gañuma ci tus amuma droit aussi jël ci fifteen parce que bu ma ko jëlee dinaa wax fan laa ko dugal nit a ma koy jox it parce que yoruma xaalis comité bi ba mu des am na loo xam ne mu ngi circuler fan yi ma leeral ci tuuti. mooy ñu ne euh, commission bi trésorier bi daa yor lee am na xaalis boo xam ne mu nga ca président am na non demewul noonu dañoo woote réunion de bureau mhm. daaw réunion de bureau bi li ko waral mooy da ngay def réunion de bureau d' abord euh, def situation doog a woote assemblée général tegal nit ñi lu leer parce que situation il fallait nga def ko def dépense def fere xool li nga dese mun a indi ay arguments yu leer que dépense yi fii ak fii Afrique la jaar réunion de bureau bu amul assemblée général mënul am loolu moo tax daaw defuñu assemblée générale ma wootee réunion de bureau ñu dem. suñu trésorier trésorier ak adjoint ñëwuñu dañoo amoon empêchement temps baa ngi dem le temps man ma jóge mbuur dem ba trésorier fële Marie Thérèse mooy suñu trésorier ma ne ko euh, comme temps amul dama bëggoon ngeen def situation yàgg sa adjoint pare ngeen jébal euh, secrétaire kayit bi ñu càmbar ko bu leeree rek ñu woote directement assemblée général parce que ñoo def assemblée sans euh, situation ba tey ba suba defuñu ko dégg nga li ma la wax. Mm-hmm. defuñu ko li fi jot a am si as as néew ci làmb Thérèse ñëwatul amul jot pour ñëw. Mm-hmm. Marie Thérèse bu ñëwul. Mm-hmm. ñu waroon def situation def assemblée générale. loolu mënul am Marie ñëwatul. Ya, wooteetul waxatul dara xaalis bi fi jot a ne kan moo koy kan moo koy man. parce que ku ñëwatul. am na lu ngeen ko santoon defu ko. xamul leen lan moo tax defu ko. ñëwatul waxatul lu jëm si loolu. mënuloo jël xaalis rek di ko jox ñetti làmb xaw ma ñeenti làmb ñoo fi tegoon xaalis ba ma teye ko xaalis baa ngi fi ma teye heure bu ñu defee réunion de bureau bu may dem dama yóbbu xaalis bi dem ñu compter ko ba mu leer ma jox ko ko comme naan nga fi may xëy mais bu ñu bu ñu xalaat ne euh, président dafa am xaaj bu mu yor ci xaalis bi te te nekkul ci trésorier nii la demee nii la demee damay xaar ñu def réunion de bureau. Mm-hmm. ñu dem parce que def nañu un petit réunion fële. Mm-hmm. xamal naa leen ne est-ce que jàpp ngeen ñaari lamb ñaata lamb ñoo teg. Mm-hmm. ñu wax ko ñu calculer xaalis ba. ba mu ne net temps la war a jox. ma ne leen heure bu ñu defee réunion de bureau ma indi xaalis bi jox ko trésorier. donc xam nga loolu leer na. am na ñoo xam ne nag nañ koy waxee ak nañ ko déggee wala nuñ nuñ ko foogee demeewul noonu noonu la demee. parce que man vraiment tout sauf ça. xaalis su ji. bañ naa ko lii sax ma jot a tee neef li wér te wóor man pour mu leer. Mm-hmm. ba ma nekkee président ba léegi. Mm-hmm. du ma yor xaalis. Mm-hmm. bu làmb amee. mis bi ci man lañ koy joxe. du def ci man trente minutes. ma jox ko jag. jag moo war a yor loolu moo ko tam sax ñooy partagé xaalis bi. def ko ci enveloppe man du ma fekkee fañ koy defee. bu ma ñëwee ci làmb ji aussi en tant que président fi ma toog laay toog à am lu ma war a waxi wala am lu ma war a régler ci biir làmb ji. xaw ma fu xaalis di jaar xaw ma nu muy demee. pour nit ñi xam loolu. caution ci trésorier lay jaar. kon président kase rek la yor. kase bi sax amoon na jamono départ bi. Martinez laa ko joxoon pour mu noppal ñu ñun ñëpp. mu mu téye lépp. comprendre nga pour mu gën a yomb. donc noonu la demee. vraiment pour mu gën a leer quoi. askan bi ñu ngi ñuy déglu teyit am na fu ñu ñuy xaar am na lu bëri loo xam ne. dañ ci waroon a xuus sax. peut temps bi. temps bi mais loolu dañ ci waroon a xuus mu gën a leer ci boppu nit ñi. yorinu comité bi. fi ñu jaar ak ni comité bi demee nii lan moo ko waral ak faay yi fi am ak histoire kalan yi fi jot a am lan moo tax mu am ak naka la demee lépp mu ngi ci sama bopp bi binduma ko boo ma ko laajee de A à Z du ci bàyyi dara duma ci yokk dara duma ci wàññi dara yàlla xam na ko parce que lu ma def nit def rek jàpp na marqué naa ko sama bopp fu ma toog ba ma yeyee ci nelaw ma wax la leen lii la kon nga Daouda looy tàggatoo la tëjee waxtaan bi kontaan di gërëm Zambro TV vraiment euh, dine ngeen yokk góorgóorlu di leen di ñaanal yàlla mi ñi nga xam ne nag moom moom rek lañu war a ñaan pour que ngeen xam ne li ma leen di souhaité nga samp fii télé yàlla xam na ko dara jombul jàmm te nit ki war naa xam ne Bodo ne mag di dox say soxla war nga xamne ci ram nga jange ci ram nga joge di ram di ram di ram be mën a dox be taxaw sa xel ko be nga mën dox sa soxla kon li ram la yalla na yàlla na def rek mu dem ba taxaw be dox di dox ay soxlam yalla mën nako de ba layl ajim parce que dafa nek lo xamne tam tam euh, nit ki selon ni ngay dundé da nga nek xalé bo ku la gis xam na am nga yar te ku yaru ku yaru dara jomb ko man loolu moo nekk li nga xam ne moom laa lay conseil ku yaru dara jomb ko yar bi nu mu tollu yokk ko respecté doomu adama yi nu mu tollu yokk ko bañ a xeeb nit bi nekk ci yow nu mu tollu yokk ko ci kaw si kanam may gërëm wax Palmarin yëpp gërëm commune bi gërëm askan bi dina nag kii wax mooy juum du càggeen ci biir wax man naa laal foo xam ne tudd naa lu nit ñi bëgguloon kenn tudd ko wala ma wax lu laal nit ma di ci lu ñoo xam ne man toog fii di wax jubluwuma ci laal nit déedéet dama ci jublu rek wax mu rafet ak askan bi am lu leen leer tuuti li ma ciy teg mooy pour ma finir per Amouraye bu dee am na temps déglu lii na xam ne rakk laa mën a doon ci moom walla jarbaat wala doom te it cër boo xam ne war na koo am ci ci cadre làmb ma xam ko jox naa ko ko te du ma jóge di ko ko jox ba mu ne ma bu ma joxati cër ma ba te bu ma fi jógee ku ñëw na ko ci jox mais it maa ngi koy ñaan lenn mu gëstuwaat bu baax li ma wax mooy lan mu di ñu mu muy essayer pour satisfaire ñu parce que dama ko jox conseiller sama première mandat dara doxu ci waxuma wax waxuma ñuul na waxuma wow na deuxième mandat mu tuuse ma loolu ma wax ko ko ba mu dégg ko ma jëlaat ko conseiller bii moo gën a pire tuddatuma te wallahi la azim jotewuñu dara waat naa ci suñu borom ne defuma tus man defuma ko dara kon ana lan moo war a indi mu bañati maa tudd fam ko commencé mooy dañoo nekk ci biir comité bi ma jox ko conseiller te bu amee soxla ci man daa am ku muy woo kooku wax ak moom kooku wax ma te bu ma ko soxlaa direct laa bu soxlaa keneen daf koy woo direct lan moo waral loolu jommal na ma torop lu mu di doon na ko teg ci suuf xam ne fii ñun ñoo ko moom te ñun ñoo ko war a liggéey na ñëw doon mag suñu biir di ñu xelal di ñu yokku xalaat di ñu puus nangu naa nekk bàyyi Fallam sur le terrain di liggéey mu di ma digal ne defal lii defal lii wax naa ko waxaat ko moom lañ fi am te ñu ngi bugg a perte loolu ci loo xam ne ay caaxaan kese la ay waxi tiraillement ay wax yoo xam ne dara amu ci ay wax parce que gis nañ sax euh, ay temps daaw na bëgg ay làmb mais instant yi sax làmb yi bëggatuñ palmarin bon côté ñaka bari lamb ji man dama gis né miis yi am légui ni la nit ñi attanul manam problème mu amna am bo miis bu ko tegatee fi ci lamb vraiment mbër duñu sawara ñew te it man man nga fay jaar daanu je pense que lolu euh, bon ci sama xalaat dama gis né mo poussé bé, lamb yi tuñu mais même bu ñuy teg ñaari lamb bu ñuy teg ñaari lamb ci commune bi wala ñett père ambu na fexe bi làmb yooyu nekk làmb yoo xam ne royukaay lay doon te pour mu doon royukaay il faut mu nangu ñëw doon suñu mag xam ne nag dañ ko dañoo doon ay xale jox ko cër mu delloo ñu cër bi gis nga cër xale boo ko jox mu delloo la ko mag boo jox cër nag dala ko war a delloo pour jàmm am vraiment may sant ñëpp di gërëm ñëpp di ko nuyuwaale au passage vraiment di ko remercier yóbbuwoon na équipe bi ñëw dem ñëw euh, ñàkk si final loolu la yàlla dogal na xam ne yàgg na am ay ndam euh, yàlla ko yàlla may wér ak gudd fan bu bëree bëree bëri bëri vraiment di ñaan di ñaanal waa waa commune bi yëpp gor ak jigéen mag ak ndaw kontaan naa bu baax a baax vraiment lii aussi bëgg naa muy bañ di gëj di am parce que liñ li ñu war a wax ci commune dafa bari mhm. waxuñu lépp mhm. dafa des lu bëri loo xam ne mhm. dañ ci war a wax waaw mais avant ñu tëj émission bi gis naa ne yàgg sama njom ñaal amoon nañ te gis naa la nga bokk ci organisation bi côté njom ñaal boobu lan nga ci jublu eh, bëgg rek ñëpp sant ñëpp santaat bu baax gis nga njom ñaal la fa xew ñëpp teg nañ ci seen bët muy lu rafet teg na teg nañ ko mbam bu mbam bi fekkewu ma ko mais bu fii maa ngi fa xoolal rek bu baax premier jour bi six heures lamb ji tas booy des quart de finale jour bi muy jeex nit ñi dañoo jóge ci lamb ji doog a ñëw julli timis lamb takku fa xoolal ma loolu rek amul mag bu ko mënul seetaan amul jigéen bu ko mënul seetaan amul góor bu seetaan amul kenn ku muy yàkkal sa soxla booy liggéey suba mun ngaa seetaane ñëw reer ngonal tuuti tëddi mais imaginal rek làmb fan la bëgg a jëm ak ñun bu ñu góorgóorluwul làmb bu tasoon vingt heures ñu ne dafa guddi mu def vingt une heures dem vingt deux heures dem vingt trois heures dem minuit ba une heure matin ba deux heures du matin xam nga fi mu jëm heure bi nit ñi war a xëy liggéey làmb fa la jëm parce que lan moo koy waral mbër yi ba tey bàyyiwuñu kenn ku ne di yónni xale pour mu xoolali ko ndax ay mbara nga fa kenn ku ne kan moo fay jiitu kenn nañu delloo si suñu xel xam ne làmb dañ ko fi fekk bàyyi nañ lañ doon tegee seen làmb heure lañ doon joxe heure bi bu jotee ku mu fi fekkul doo bëre gis nga boo desee si drapeau bi ba set suba ñu jox la heure ñëwoo heure boobu ñàkk nga sa quart de finale wala sa demi finale doo bëre kon loolu moo taxoon ba mbër yi respecté air bi nga xam ne moom la ñuy ñëw ci làmb ji làmb jëm kanam làmb nag arrière na arrière boo xam ne waa njoom ñaan loolu moo leen tax a jóg pour vraiment delloo siwaat làmb ci palaasam ndaxte nit ñi ñu ngi coow rek mais gis nga ñi ñi dul seetaan làmb tey jii ndax guddee gi muy guddee ñoo ëpp fuuf ñiy seetaan làmb ji actuellement te ñiy seetaan lamb ji actuellement bu tegoon sax une heure di une heure une ci bëccëg bi dinañ ñëw boole kook ñi nga xam ne nag daawuñu woon seetaan bu ñu ñëwee fekk si ñoon kon lamb du musa a perte dara sans dépend ci ñun départ bi dina xaw a metti nii mais nit ñi bu ñu demee ba xam ne lii moo fi ne ñëpp dinañ fekkantewaat si lamb ji lamb ji di teel a tas ñun ñëpp ñu am jàmm yow tey jii boo jógee fii dem mhm. di nga dem dox sa soxla ñëwaat mhm. du la yàq dara bu subaa bu waree dem ni nga demaat mhm. mais xoolal heure bi ngeen di jóge ci làmb da dem journée bi yëpp li nga war a liggéey sax doo ko mën a liggéey ndax yéen doo nelaw jaaduwul jaaduwul ñun ñi nga xam ne ñun ñooy président comité de lutte yi man rafet wu ma ko problème bi ma am ak nit ñi fii ba tax mu bari coow lool ci commune bi mooy mbappat yi doon dem ba ay quatre heures du loolu du yoon gis nga mbër yi liñ fi teg ñoom ñoo ko moom gis nga ñoom ñoo ko moom ñoom lañ leen tegal nañu fexe ba mbër yi fekk si ñu ci li nga xam ne moom lañ bëgg te pour ñu fekk si ñu ci liñ bëgg mooy ñu ñëpp dañuy bokk benn objectif bi làmb guddee bi dañ ñoom ñaar nag loolu mel lañ tax a jóg te it macha allah ñaari édition yi jàll na te it ku fi nekk ñu ngi lay ñaan nga dugal ci sa loxo ak ku di doon yéen ñi nga xam ne yéen lu ngeen wax nit ñi déglu ko fexe leen dugal ci seen loxo wax ci convaincre nit ñi ba ñun ñëpp ñu am bokk benn gis-gis xam ne vraiment ñu waa njoom ñaal jubluñu lu dul rek rafetal gis nga banditisme yi fu histoire am am guddi ñi gaañu dañuy bari nit def na dara la tax ba mu def ko lënd ma tax ko mais bu ba bëccëg du ko def parce que bu tolloo fii magam tollu fee di ko gis mu di ko gis du ko def bu tolloo fii gis papaam fale du ko def kon ngeen xam ne guddi gi yóbbul amul dara lu ñu may ci avantage lu dul di ñu yàqal sàcc bi am ci àll bi tam guddee ca làmb ja rek moo koy waral mais làmb ji bu tasee dix-huit kenn ku ne dem gett ga wala nga dem sa kër duñ fa sàcc dara vraiment loolu loolu waa ñoom ñaal daal loolu moo leen tax a jóg ñu maa ngi sa biir aussi man maa ngi ci biir association ñoom ñaal vraiment comme li ma la wax sànq rek askanu séeréer ci fu ñu jublu lépp lu ko jëmale kanam. su dee lu ma mën a war a def dinaa ko def su dee lu ma war a wax dinaa ko wax. Mm-hmm. su dee lu ma war a teewee dinaa ko teewee yàlla xam na ko. Mm-hmm. fu mu mun maa mm-hmm. ngi sant ñëpp gërëm ñëpp. maa ngi sant ñëpp gërëm ñëpp. macha allah. nga ñu moo doon quelques mots aussi na séeréer. gid wax baax. layaye fogole palmarin o kiino kiin fatowa siif o fe in bo o la alay suba so fopa jalel men ba mos o deta nga kena yakwa mena moya nga shwe in sax a commencer a moya ngor ke da a moderni a moderniser a serera ke bo laka serera ka andone o lengu se nana den men to hmm. yay pin ke mo fa nana den hmm. ndi ba ngona la ya layti o an ke te buna lay to lay ran te na lay dane hey hmm. ken ta devoir ne ka lay te eh, non seulement ken Euh, éducation de base fait mm. fati ɓaato ngorgol yo ke éducation de base mm. on jini ñu ngaten ya saté wi ne fop andan towe sagantan jaje mayu ka andona ye o yahewa mm. fati i ngorgolu yo no teɓanong nu defu nda leg leg o xet fo nga def dara ko rit na andona na nga sedawo a dawo amayamen kin fat wiine njublu yo yam it pujehna na ko bale to moje o nananga tela e orju ala tela kende je he palmare kamo fana buta butu kon fati sadakino a cangake nan janga fati batu sadakino anda haye a cangewu ku refer na cang refe dara o kino he dabor na ku wawo hotka anu janga ha bo pare kon fati wini batu ngorgol yo sawo len batu ndamta a ɓatullalade naɗɗa dale it kurfi rew maak fa teɓ mm-hmm. i mbokatoor mbux juwala fe andoona yee ten roog mm-hmm. a saqu in a fi'o rimel in meen i ande i njege ka refeerna juwala ni coté ke i saɗakino bo juwala ba i perte i dara mm-hmm. to a jam mayu kaana bugna ɓoso in e, a tafes ale autorité ke yiif den no maax ole den no maax ole trop ɓe mbahnallay bonnanel fota saɗakino allayi amboño ngef dara par ce que nak i ñakanga jowala i pertey de jam jowala rek i njewu to o kiin me jofona ten o xaca kon a ñaƴoɗale fati suɓten goor fi rew ma fa teɓ o yara andir de fo fula fo fayda nda i jomi i jomi xoolu xaj ten o cuwala ret tew famanu te retna bo o nanga cip kudero na fi olanga chwala refu umaka kara ngamana la aha chwala ne kala ko ken bara bosto mu ina ngorke fati yip ken na yif in boba ken dada in o chwala i jom fula faida fa fa haya vuna na tena andi de kon yasam roha damta in ino fop bo ken fop roha damta in am vonyo monga yif in boy basini yif manu defna aha te banu wake roha dimbale den ina janga barkena janga ke woni defnani cellel lakas lowo ñaƴanin wujjirna roho fi tanenao hu wodna eh, i tum roho ɓato wo dole rek yacce o kiino kiin kete ñaapa na katan no yaalo xe machallah contanam trop jerejef aca gaay ne kaaga tiɗ uya champion maak o andoona ko leng présenter kiran te refa grand dawda ten i ɗeetiɗ u meeke na palmarin ngalu mbaxtaan fa ten ni mayu aussi eh, waxtaan fe nag ka i yaac no